ma bëggoon nag waxtaan ak yéen ci lu gàtt mbokk yi mënuma ñaari fan yu ne ma génn wax moo tax suñuy waxtaan dañuy bëgg waxtaan bi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax dañuy bëgg ngeen dégluñu ak xel bañ a topp mbumbaay bi ndax dañuy faral di gis ni bu ñu defee suñuy sotti ba pare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 du ma ne lii moo ko teree am de waaye bokk na ci li ko sonal ndax xale bu toll ci war a def examen ñu tëj sa kër boo waree génn dañ lay fuye fuye sa oto toog na lu mat ay fani fani fan ci fekk baccalauréat bi jege na ñu tëj fii bañ ne kenn du génn ci sama kër ba mënul dem jàngi su dul woon waa école am ñu jóg bloqué cours yi ne tànk suwaay bu Sonko ñëwul jàngi si duñ ko duñu duñu bàyyi mbir mi peut-être duñ ko doon bàyyi mu dem préparer examen fitna googu nga teg ko ab xale buy def examen ci jamono jooju moom ana njabootam ndax Amadou Sall dafa gën sama doom man ma ngay yéeg avion di jàdd fii di dem fële di dugg ci banlieue bi naan day dem recruter ay nervi lu ko neex mu ngi koy def ci réew mi est-ce que moom dafa gën sama doom te lépp nag ci alalu réew mi lañ koy defee jamono jooju ana soxnaam mu ngi dox ay soxlaam man ñu bëgg koo tere sama famille démb ñeenti fan mi ngi ni amuñu wifi ci kër gi démb waa Free ñu woo leen ñu ñëw ñu téye leen fële commissaire bi ne duñu dugg ci sama kër pour ñëw def réseau bi daloon nañu keroog ci plombier bi dal nañu ci maçon dal nañu ci ku ne ñun duñu dugg ci kër gi pour ñëw réparer ngeen jàpp ni loolu jaadu na bu ñëw ñu wootee ñu ne leen dem leen comme bañ leen ngeen dugg ñu ne ñu vérifier leen lii vérifier ni bi ñu vérifier dañoo dem ba ci biti gis ni ndekete fil bi câble bi dañ koo dagg ak ak si walla paaka xam nga loolu sabotage waa pression yoobu ak fit de boobu nga teg ko sama famille loolu su dul en lan la doon koo xam ne bu ñu tuddee turu Ousmane Sonko sa kanam sax ngay bëgg a wàccu waaye gis nga en du lor ke nga ayir foo gis kuy dund en rek moom la en nga di lor moom lay détruire ñun ñu ngi sant yàlla ñaareelu santiment boo xam ne Macky Sall nga koy dund te mu nar a àndil Sénégal jafe-jafe yu rëy mooy li tubaab di wax orgueil mooy rëy dem ba xam ni mbir mi jeex na waaye ñëg jàpp la nga jàpp ni boo tegee mbir yi ci suuf doxal jàmm dalal réew mi day mel ni dañ dangaa feeb ci kanamu nit ñi moom noonu la ko jàppee rëy muy ñaareel bi ñetteel gi mooy ragal ragal lan mooy xew gannaaw bu jógee fii te li ko andi yépp mooy ni mu ñëw yore réew mi ci fukki fan ak eh, fukki at ak ñaar yi weesu ñu jox réew ne la doxalal yoon doxalal dëgg nga jël ànd ceeg coxar goo xam ne ñépp seede nañ ko di fitnaal Sénégalais yi di dal ci kaw Sénégalais yi di gaañ Sénégalais yi di tëj Sénégalais yi ku ne ànduma ak yow nga faagaagal te fàtte ni nguur dafa am bakkan te yàllaa koy joxe tey war ngaa jóge ci nguur gi nelawatoo lekkatoo jàpp ni mën nga imposer Sénégalais yi kan moo la war a remplacer lii lépp mënoon na ko moytu.